réew moo xamante ne ni macha allah doomi réew mi seen xarañte doomi réew mi seen taxawaay waaye doomi réew mi ak seeni jafe-jafe si doomi réew mi ak seen ëllëg lan lan ci namm soxna aram wax nañ leen li war a waxtaane lépp tey dinañu waxtaane li nga xamante ne bi moo di ay ñaawteef yu am ca université daara ju kawe ji mbokk yi dinañu waxtaane li nga xamante ne moo di wàllu immigration xale yi nga xamante ni dañuy jël gaal dem ak ñi nga xam ne bëgg nañu weccoo am diggante Sénégal ak Espagne loolu war nañ ko ndax dina freiner li nga xam ni moo di Barça Barsaq bi nuy faral di wax ak it leneen loo xam ne jëm na ci wa ci wàllu voté loo xam ne ci wàllu voté local yi mm. maanaam maire yi ñu ko war a jiite déggoo amu ci ci diggante opposition bi ak ñi nga xamante ni ñoo di nguur gi maanaam ku jëg politique gi ak nguur gi déggoo wuñu ci loolu lépp yaakaar naa ni nag soxna Aram ci loolu la ñu war a waxtaane ah, Karajo nga baal ma élément bi xaw nañ ko romb tuuti dinañu ci dellu dellusiwaat fin émission bi ñu door ci mën a ñëwaat won ñaari mbër yi ak li nga xamante ni moo ci am parce que déjà dugg nañu ci biir waxtaan bi soxla Aram. waaw euh, njëkkee ci li nga xamante ne rek wax nañ ko sànq mu di euh, daara ju kawe ji ndax euh, am na benn doomu aadama bu fa ñàkk bakkenam mu di gaaw Gawsu Jéeme moomu nag la nga xamante ne fësal nañ ko ci xibaar moo di ne du sax sax étudiant ndax 2015 la la fa la fa gëj a nekk étudiant mais nag moom moo ñàkk bakkenam ci xeexoo boo xam ne amoon na ci diggante. te association euh, universitaire bi nga xamante ne mooy Ndefleng ak beneen bi di waa Kekendo. Kekendo ñu am taxawaay boo xamante ne nag ñu bëri ñaawlu lañu ko waaye autorité universitaire yi génn nañu ñoom itam dal di wax ngir fexe dal am fa. li ñu ci mën a jàpp rek mooy ci dernière information yu ñu am mooy assemblée euh, bu euh, université bi dafa jël dogal ngir ñu daal di suspendre amicale yi ndax jàpp na ni bokk na ci liy tax euh, xeexoo daal di fay am ndax nag jamono ji ñu jàpp ne tamit élection amicale yi surtout bu fac lettre ak fac droit moom la tombel loolee nag nekk loo xamante ne nii dégg nañ ko si mais lenn lu ñu mën a jàpp rek mooy coût taxaw na ñoom itam ne ci mbébét bi nga xamante ne ni assemblée université am na ko ngir ñu daal di euh, tëj li nga xamante ne moo di campus social bi ñoom jàpp nañ ne euh, nekk na loo xam ne amuñu ci dogal ngir mën ci àtte loolee nag moo tax tey ñu daal di yëkkati li nga xamante ne wax naa ko sànq muy violence yi am biir UCAD ndax nag euh, du du guléet ñu gis lu mel nii baax na nag jamono gi ñu taxaw ci xam naa nag du ñàkk ku ci nekk dina ci am euh, jàngat mais balaa may ñëw ci ñi nga xamante ne ni euh, moo di euh, monsieur le ministre damay bëgg njëkkee ci ki nga xamante ne moo di Ababacar Sadikh Top li tax parce que ndaw la. Mm-hmm. li tax parce que jaar na UCAD li tax parce que.